asalaamaaleykum mbokk yi ñu safoo ak di ñu bàyyi xel ci seen chaîne bi di Al Haïbou TV te la bi ñu ñëwaat ci seen jotaay bi nga xam ne ñoo ngi ko fas yéene di def bés bu jot incha allah lépp lu leen riir lépp lu leen riir ci rek ngeen ko laajee incha dañ ci def suñu kémt lay kàttan lépp lu ñu mën ñu def ko te nag ñu dikk ci euh, méthode boo xamante ne mën nañ ne ci jamono gis nañu ñu bëri di diingat lu mel ne tarixa yi murid tijaan xaadir laayeen ak tarixa bu mën a doon gis nañ ñu fiy diingat waaye tamit ah, tolluwaay bi ñu ci war a am rek mooy jërul sax ñu leen di xool mbaa sax ñuy déglu la wax ñu ànd ak sëriñ mbay mu am ay pàccar yu ñuy jot a génneel incha allah ñu dellu si. bi ñuy wax naan jébbalu dafa araam jëbbal sa bopp sa moroomum doomu aadama sa moroomum bi def ñàkk xam la ma ne toujours ma wax ne boo tawatee sax dangay jox médecin bi da ngay koy jébbal sa bopp lu mu tere doo ko def. lu mu la digal ngay def bu la neex bul añ doo añ bul reer doo reer bul naan doo naan bu la ne summi sa tubéy nga summi ko léegi ki nga xam nag sa yaram na tawat mu di ko faj rawat na kii taw kii faj ruux gi koo gën a foor gën a léegi kii jëmm ji ñëw gëm na lool ki mu fekk si gëm na ko ngëm goo xam ne ngëm mënu koo weesu ndekete yoo ki mu gëm moom du dara du dara waaye gëm gi mu ko gëm mi ngi koy tërbiw lu mu ko sant mu def ko ànd ak rafet njort ak wóolu ngëm yàlla dogal ci gaa ñi nga xam ne maanaam ñi nga xam ne eh, ñoon la eh, lu tësoo fii ni ñu yar macha allah ñoo ko déggandoo yaakaar naa borom xam-xam bu toll ne Baye Sam Mbaye ndax ah, xam-xam ni mu amee xam-xam bu nam ne jébbale boppam rek kon xam nañ jébbalu moom lu war la sax ci doomu aadama lool war la sax ci jullit bi macha allah kon loolu moo nekkoon vidéo bi di leen dig daje suñu beneen vidéo incha allah di leen ñaan rek ngeen woy di abonné ak itamit di partager vidéo yi ndax itam bokk na ci li ñuy gën a may doole ngir chaine bi gën a mën a évoluer jaa ngeen jëf